personnes qui vont acheter le bénéfice augmente mm -hmm. tu n'as pas buté am nga yërmande ci sa population yi mais tu peux pas être un acteur ngay jaay nga yor say produits teg ko fi bu noppi bu nekk benn benn benn bukki yow loolu la nga xaar la ngay xaar client bi ñëw fekk ñëw mu nekk dans le besoin nga aj prix yi jamono bii ngay gis ay xar yi nga xam ne en temps normal ay quatre-vingt mille quatre-vingt-dix mille cent mille cent vingt mille lañ jaay soo demee ñu li koy jaay premier prix deux francs mais pourquoi y a l'État peut réguler le marché peut mettre régler les problèmes et tout ça mais y a une question y a des choses yi nga xam c'est une question de prix. Mhm. et tant que les prix les prix ne pas les Sénégalais amuñu yërmande xam ne que instant bii ils sont dans le besoin. que li ngay def ni wàññiwul la dara parce que yow sa xar yëpp jar moo gën nga jaay ñaari xar à un prix au prix que tu veux yeneen yëpp nga bàyyi ko foofu mais duñ dem loolu moo tax ce sont les Mauritaniens et les Maliens ñooy ñëw jaay seen xar yëpp bazarder ko parce que ñooñu ko bëgg am na am na benn euh, mi nga xam ne parfois da dem sax ñi nga xam ne y a des cinq heures jusqu'au matin. Mm-hmm. suñu nee neuf heures lay julli ñu dem sept heures du matin taxaw. effectivement éleveur bi paniqué gis xool tuuti ne gis gett baa del foofu jaay fa dara ndax dafa doon jéem a jaay dafa doon jéem a laxas jaan mu mujjee di bazarder xaram yi. Mm-hmm. mais si tu vendais à tes moutons à un comme chaque année c'est toujours les c'était toujours les mêmes problèmes mais cette année il y a beaucoup de problèmes que l'État a réglés maintenant il reste le problème principal mooy jikko yi waaw ah waaw jikko yi moom comme li mu parce que état bi gis nañ euh, mesures yi nga xamante ni moom la jël pour mën a yombalal euh, góorgóorlu yi mhm. xar yi mais ba tey affaire yi dafa cher comme ni ñu ko waxee sànq mais est-ce que état bi warul mën a teg a drastique cest à nga xamante ni ñoo téye seen prix maanaam yokk ko ba te ko wàcce ba nga xamante ni ñiy góorgóorlu mënuñu am ci xar yi hmm. xam nga domaine boobu nag pour état régler ko mhm. ça va être très compliqué dans la mesure où ki yar xaram mënoo ñëw nag ne ko lii ngay jaayee xam nga ki nga xam ne moom moo yor xaram moo xam ni mu ko dundalee moo xam lim li mu ci dépensé ci wàllu aliment te ñoom ils n'ont jamais posé problème boobu ñoom li ñu mës a posé mooy bu ngeen bëggee prix yi wàññeeku. <laughs> éleveurs ñoom ñoo ko doon wax ne bu ngeen bëggee xar ñëw prix yi wàññeeku la nga xam ne moo nekkoon suñu jafe-jafe il faut ngeen indi ci saafara état bi ne leen lan mooy seen jafe-jafe ñu ne déjà ñun bu ñu ñëwee site bu ñu nekk day problème bu ñu bu ñu ndox bi day am problème bu ñu sancee aliments yi ñuy dundalee suñu jur gi dafay am problème ñi nga xam ne ñoo nekk su réew yi nekk à côté moo nekkoon taxi yi ñu doon fay taxi yi moo taxoon mënuñ woon bañ a jaayee yenn yi mais état bi teggil na leen loolu yëpp loolu yëpp ñu teggil la ko lan moo des nag mu des ci diggante jëndkat bi ak jaaykat bi jëndkat bi ak jaaykat bi nag dafa loo xam ne ñun senegal yi dañuy dem ba fàtte ko parce que ñun dañuy fàtte. lan moo waral ñuy tabaski ak tabaski exactement lan la ci suñu diine ñun dañuy fàtte loolu démb rek maa ngi ciy discuter ak benn benn benn waay ma naan ko ñaata ngay jaay xar mu ne ma euh, wax ma daal benn prix quoi ma ne ko mooy loolu cher na de ma ne ma non loolu loolu xaru yar la quoi xaru la ma ne ko yow est-ce que mën nga ma wax ba ange Gabriel Jibril ba muy indi xar mi di ko teg ci loxo yonent yàlla Ibrahim est-ce que xar ba mu teg ci loxoom yow mun nga ma wax ndax xaru yar la wala xaru coggal la mu ne ma ne ko est-ce que mun nga ma wax est-ce que tu peux me répondre à cette question là mu ne ma ne ko mais pourquoi vous voulez nous imposer ay xari yar xari coggal xar lañu wax xar xar nañu rey xar nañu rey xar quoi na rek c'est-à-dire que gis nga ñun dañuy dem ba fàtte lan mooy farata tabaski dañ ne la na Euh, nanga nga répété le sacrifice bi Ibra bi Ibrahima defoon moom ngay def ñëw jënd xar rey ko maintenant tout ce qui est accès tout ce qui suit après sa c' est affaire yu aadala la même xar mi xar mi yàlla daf la dimbale ba daf la wax solo say moyen si tu possibilité day possibilité d'acheter un bon bélier lépp dafay bokk rek ci jaamu yàlla gi parce que ñu nit tabaski dañ ciy profito def ko genre yi ngistal surtout boo dëkkee ci kër yoo xam ne ay cité la bon ñaan diw de gis nga xaram bi nam toll kee de gis nga xaram bi nam toll xam nga donc ça dafa dem ba tabaski léegi dafa nekk pression ci ñun. benn pression lañ ko def xam nga ba pare nag aada yi ci lax. non c'est même pas de la mode sax c'est un ah. concours. voilà concours concours bi ma waxee mën na ko saa yi mën naa mën na ko man bu fekkoon ne at ba at laay lekk yàpp bu fekkoon at ba at tabaski ba tabaski laay lekk yàpp bu may jënd xar mun naa nekk di toppatoo. ban xeeti yàpp laa soxla wala mais man damay lekk yàpp. 365 mhm. jours sur 365 jours bu ma bu peut-être que bu ma tëbalee 2 jours wala 3 jours donc man aw ma problème mu ndawal xam nga man lan la am problème man problème ndax danaa am xar bu ma tabaskee man ci logique boobu laa nekk. léegi nag dafa am ñoo xam ne ñu nekk ci logique boo xam ne ñoom it ñooy dem ba sonal seen bopp ñii dana benn melo laay wut. ñu ne la xarum yar laa wut ndax yàpp bee gën a ne parce que gis na man tabaski j'ai l'impression que tabaski j'ai l'impression que sénégalais yi mosuñu lekk yàpp tellement que dañuy insister ci le côté le côté alimentaire le côté bouffe j'ai l'impression que comme sénégalais ñoom du ñuy lekk yàpp tabaski ba tabaski quoi. Euh, une fois dans l'année lañuy lekk yàpp mooy c'est tabaski. gis nga seen comportement mooy ils sont bizarres. est que xam nga tey boo demee Màkka yow doo gis saxaar da ngay ñëw fay ñu jox la ticket da ngay ñëw ñu jox la ticket. yow xamuloo ndax xar bu rëy la wala xar bu kii la mais au moins di nga acquitté wu ci sacrifice bi ngay def. mais loolu loolu moo tax. ñuy tabaski amul leneen leneen raxu ci nag mais ñun dañoo dem ba jël tabaski mu xooj na nga bëgg def loo mënul bëgg a yenu loo àttanut mu jaral la ngay leb alors que tabaski c'est une fête reyal sa xar. yaa xam kuy la yaa xam benn melo la mais na nekk parce que l'islam tegal nañu charte yi nga xam ne mooy tax ñu ne la xar mi mat na tabaski waaye ci charte yi waxu ci xar bu rëy waxu ci xar bu ponkal nii la la wax lii lii lii xar bu xar bu xar bu làggiwul xar bu patul yooyu yëpp mais saa waay jëndal xar selon tes te gis nga boo demee ba amoo ko boo demee ba amoo ko sax mais yàlla teggil na la ko yàlla teggil nañu ko kon yàlla moom bi ñu moom bi ñuy defal tabaski bi moom mi ñuy defal tabaski def na lépp lépp lépp lépp lépp pour woyofal ñu ko mais ñun nag ñun sénégalais suñu problème mooy balaa ñoo profité ci situation rek nit ñi nekk ci problème man sa je l'ai remarqué chez les sénégalais c'est-à-dire que sénégalais du ne bés bi. bésu jaamu yàlla la xaaral ma nit ma ja parce que gis nga jaamu yàlla c'est à plusieurs niveaux tey saa kiy jaay xar munoon na ne bësu jaamu yàlla la man dama siy profité ma nit jaamuwaale ci yàlla ma yombalal jullit yi xar. yàlla bindal ko ci tiyaaba. yàlla bindal ma ci tiyaaba. Mhm. mais ñu sénégalais balaa ñoo profité rek ñu nekk en difficulté xoolal transport bi. Mhm. lan mooy expliquer yokk bi ñu ko yokk. pourquoi ñu war ko yokk. lan man j'aurais même compris l'effet inverse ngay yokk di yokk ba jour tabaski nga ne ah tey de comme ñi ñëpp tabaski moo leen tax jóg jaamu yàlla moo leen tax a jóg man it xaaral ma participer ci jaamu yàlla bi wàññi wàññi transport bi mais ñun sénégalais ñun dañuy profiter toujours ci souffrance sénégalais yi da ngay xool léegi boo taxawoon fii war a dem Padois di fay mille francs buy xiin taximaan bi naan la trois 3000. waaw parce que xam na ne day bañ nga tooy. parce que mu ngi naan kii bu ma jëlul. dana tawte waaw donc lu ma ko fayeeku rek. Mhm. dana ma ko fay ba ci sax a un de à un niveau terre à terre boo génnee taxaw sa gel bu la waroon fayeeku 2000 da lay fay 4000 <laughs> parce que danaa non day rusa waxaale ci kanamu gel bi quoi day rusa waxaale <laughs> tu vois donc cet esprit tordu là. Mhm. di am di soutirer les gens di leen di leen di leen di leen presser c'est ça que les Sénégalais dañu nekk ci bëtu feet bësu feet ku ci nekk noo mën a participer ci feet bi ba yombalal ko jullit yi defe naa tiyaaba bu rëy lay doon ci yow mais malheureusement ñun tabaski day ñëw boo calculer li ñu ci war a bénéficier wu fu ñu waree am 20 danañu sàggan ba duñ ci am sax 5 ndax suñu suñu recherche de profit loolu mooy suñu problème beneen problème bi mooy dañuy ñun nit ñi dañoo ñàkk a xam suñu bopp Hmm. dañoo ñàkk xam suñu bopp gis nga planification bu ñu koy wax du état rek mooy planifier famille ñoo war a gën a commencer planification gis nga suma papa da doon def à deux mois de la tabaski xottil nañu ba boo mooy toujours yi tabaski yére yi ñuy sol daf ñuy jëkk ndax il se prépare parce que wax na day xam ne tabaski le mois du ta le mois de la tabaski salaire ba ma fay am li ma war a def mënu ma ko def ci mois boobu mënu ma ko def ci ci sama salaire boobu mais tu te prépares deux mois lañ jub si mais ku jëndal tissu fii yóbbu si tailleur bi xam nga foofu lay gën a moins cher mais imagine nga bàyyi ba tabaski ni këtt ne jot nga jël sa salaire ak ban salaire nga bëgg ci jëndal xale yi bëgg ci jënd xar bëgg ci jënd soble pomme de terre mais loolu sa salaire attanu ko. bu dee ñuy fay location war ko ci génne. nga war a fay fay location. ndax courant courant bi ñëw. Mm-hmm. léegi mooy indi nag après bu fekkee ne da ngay liggéey nga dem def découvert nga dem leb. Mm-hmm. gis nga bor boobu moo lay topp ba tabaski déwén. waaw moo tax boo gisee travail yooyu yu bëri ils sont jamais à jour ndax leb nañ bor boo xam ne mu ngi leen di topp alors que ñun dañu war a planifier deux mois moo des ci tabaski bi mais jëndal say tissu pour xale yi nga yóbbu ci tailleur bi. foofu tailleur bi non seulement dana am temps pour ñawal la ñaw bu baax mais de moi bu ñu ne veille itam am na ñoo xam dañuy toog ci tailleur bi. ba dañuy toog ci tailleur bi ba le lendemain à 10 heures. mais loolu loolu nga yaakaar ne loolu nekkati na fet alors que fête c'est pour vraiment lekk naan foore mais nga nar a nekk ci tailleur ba 10 heures mais boo ñëwee ban njëriñ ngay amal seen waa kër ban njëriñ alors que moi je peux je peux comprendre pour les enfants ñu jëndal leen yére bu bees mais muskala mag. nga tabaski plus de trente fois quarante <laughs> fois mais ji ñëwal fëgg sa benn xaftaan rek sol dem sa yoon mhm. mais boo ko defee ñu ne ah moom de moom dafa mel ni moom jabar ji moom jabar non boo xamal dara sax mais bu ñu yem ci yow amul problème mais dañ naan moom de lu mu am rek jox ko jabar ji ba talul boppam mu ngi nii gis nga ko de mhm. yëre bu bees sax mënu koo jënd ci tabaski bi alors ces astuces là moo moo polluer suñu société mhm. ba nit léegi sañatul def li mu bëgg